jëre ngeen jëf mbokk yi générique bi départ na jàngat làmb tàmbali na Baye Djily Père Birahim Ndiaye ñu leen di nuyuwaat bu baax a baax a baax fépp fu waay mën a nekk moo xam ci réew mi ak bitim réew ñëwati nañ jàkkaarloog télé bi yéen ñu ko gën a xam mbokk yi dañuy indi komba bu neex boo xamante ni Père Birahim moo koy décortiquer waxtaan ci joxe ci li nga xamante ne mooy xalaatam mbër mi daanu ñu wax ban erreur la def ba daanu ki daan ci nan la bëree. ba daan li nga xamante ne mooy làmb ji waaye bi yoon dañu leen a indil bi gën a gaaw ci saison deux mille vingt bi mu dox ci diggante serpent ak caatu yaraax mu nekkoon combat boo xamante ni fële ca arène nationale la woon ñoom ñaari xale yi gannaaw loolu damay bàyyi per mu nuyoo euh, nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu commencé waxtaan bi per maa ngi lay nuyu. waaw jërëjëf Djily maa ngi delloo nuyoo di wax salaamaaleykum wa rahmatullah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min maa ngi nuyu mbooloo mépp mhm. di bëggee internet yi nga xam ne ñoo taxaw fii di ñu di safoo suñuy analyse fii ci Wassare mhm. maa ngi leen tàllal loxo di leen nuyu di leen wax daal bon heureusement di nuyu yéen ñëpp nag mhm. waaw di ñaan ci yàlla at mi yàlla atum naataange ci ñun mu ànd ak wér ak wérle di nuyu ñi ko safoo ñëpp di seetaan di woo nag gars yi ñu gën a nag waawane nag ci scène bi wallaay doolay jën ndox la de waaw te loolu lépp suñu xorom la mhm. waaw parce que li nga ko waxee rek doolay jën ndox la xam nga jën bu génnee ci ndox rek doole xañ moo tax yàlla rek a xarañ billaay yàlla rek a xarañ te nit bu duggoon ci biir ndox léegi léegi loo bari woole doole léegi rek billaay waaw léegi ñu fi daaw la. léegi ñu fi daaw maa la ko wax. da nga naan ñu fi daaw ko. <laughs> ñu fi daaw ko waaye waaye ñu ngi léegi ñu fi daaw wallaay père wax nga dëgg de. léegi ñu fi daaw ko de. dëgg la dëgg la père Birahim dëgg la tey ñu del si waat pour waxtaan waaw. <laughs> ndeysaan père Birahim Ndiaye dégg ngeen ko. waaw Euh, mag daal jël naa bàyyi ci réew Père ah. Birahim dégg nga fi may waxee ak moom fa muy waxee ah, ah, nga xam ne yéen ñi ñuy seetaan yéen a gën a xam bi per di waxee Père ba lay ñaanal bu baax a baax gudd fan ak wér euh, tey nag indi nañ combat bu neex mu dox ci diggante serpent mhm. ak caatu yaraax Père Birahim kii mooy caatu yaraax moo woon ginnaaw nii kii mooy serpent ñoom ñaar nag ku ci nekk keroog dafa mel ni tent dafa xew ñoom ñaar keroog ku ci nekk daa tent bopp ba waaye bëri nañ combat a gaaw ci mm. bi mm-hmm. mu nekk ci secondes. su ko defee dañuy indi combat bi père. nga nga décortiquer ma ko su ko defee ñu dellu si waat. kon nag euh, ñu ngi ñëw ci tey ñu mën a waxtaan ci komba euh, serpent. ak caatu yaraax ak caatu yaraax caatu yaraax moo ñu woon ginnaaw. dëgg la serpent moo taxaw ne di wax ak euh, arbitre bi. Mhm. ñoom ñëpp arbitre baa ngi leen di jox. dafa ay directive yi nga xam ne moo war ci làmb ji. Mhm. di bi nangu ak li ak li mu bañ ak su ma siflee tu ma defee nii ak maanaam daal. Mhm. ku nekk mu wax la li nga xam ne mhm. ne moo la moom lañ lay tere ci combat bi loolu mooy début bi toujours mooy commencement bi. dëgg la loolu moom xamandoo nañu ko ñun ñëpp quoi. Ah, ñu dem nag léegi xool. parce ñaari boy yi. Ah, man dama ne maanaam seetaanuma leen ci mbapat seetaanuma leen xaw ma leen nag. ñaari boy yi xaw ma leen. waaw parce damay gis nii rek bëre bi laay seetaan di ko analyser nii. waaye ku nekk li nga wane nag ci laa lay mën a àtte. Mhm. parce que xaw ma leen. dëgg la bu fekkoon dama leen a xam. Mhm. yàgg leen a seetaan. Mhm. dégg nga ku ci nekk dinaa xam li nga foore ak li nga feebale. dëgg la waaye bu fekkee nit ki mosoo koo seetaan. xamuloo ko bu la romboon moo doon xam mooy diw. Euh, li mu wane ci géew bi rek ci li nga mën di àtte. dëgg la waaw ci xëy na nag mën naa ma jaar ci yoon mën naa ma juum. Mhm. waaye li ma gis ci géew bi loolu lay àtte. Mhm. waaw ñu dem. ay ca ñu dem sëñ Basirou. waaw. Mhm. ñoom ñaar ngi noonu taxaw. xam naa ni ni ñu image bi jëlee pour ñu gis état de forme ñaari bëri du xaw a du xaw a. waaw état de forme bi moom xam nga mbër moom bu jëlee avance rek mu nga ci entraînement am. état de forme moom. Euh, ku jël avance jëli. Mhm. Euh, di préparer combat. Mhm. ma waroo am ñàkk jom ba du indi condition physique ak alal. parce que mënoo waroo bu mbër yi dama leen di bàyyi xel ñu bàyyi ci leen seen xel. Mhm. nañu moytu. yaa ngi dégg li ma la wax. waaw am combat lépp nga wékk ko ci sangoog takkoog diwu. diw dagg na lenn li sëriñ moo la koy defaral. lenn li jibar yi ñoo la koy def. Mm-hmm. ñaara saafara bee lay dooli dooleeg. dëgg la waaw. ku ci nekk tam pour nga xam ne dégg nga tamit yaakaar ne ay gàllaaj yi nga takk yooyu yëpp tey moo lay jox kàttan ba yow li nga war def ci combat bi doo ko def looloo la koy defal loolu na ngeen ci bàyyi xel na ngeen bàyyi xel ci ne làmb ci boppam. dafa am loo xam ne mbër mee ko moom loolu nag liggéey lay laaj mhm. mooy indi condition physique bu wóor mhm. mën a bëri bu wóor ak condition physique bu wóor mhm. loolu nag la cee des nag ñaan nga cee topp yooyu nag ah. loolu mën na caa feeñ dëgg la waaw te bariwu ca sax waaye li ci gën a bari daal mooy nga am condition mën a bëri ñemee ki ngay bëreel sëñ Bass léegi da ah. may dellul tuuti ginnaaw père gis nga moment bi nga xamante ne arbitre bi mu ngi wax ak ñoom ñaari mbëri waaw xoolal kii di euh, serpent ak caatu yarax caatu yarax mu ngi concentré wu ci adversaire waaw mais serpent gis nga ko mu ngi ci débat bi ba tey di roof di kii concentration bi mu war a def ci adversaire am sax defu ko hmm. gis nga bas dellu tuuti dellu tuuti nga gis fi arbitre bi wax ak ñoom et man ci hmm. sama gis-gis dafa mel ni hmm. euh, serpent moo ëpp waaw wala boog moo sut waaw ñoom ñaar xam naa ne Euh, tolloo tolloo parce que ni ma ko gisee ni kii woon ñu mm-hmm. dafa xaw a ëmb kii mm-hmm. dafa xaw a xaw a ba ni nga ko gën a ko ni gisee mm-hmm. te li ma la waxoon sànq waaye li ñuy bëri fii loolu lay attee dëgg la waaw li ñu bëri fii ci loolu lay la lay lay lay waxtaane gis nga mu ngi ci débat bi ba tey waaw moom serpent arbitre bi xool na ay jugeam est-ce que li mu def ni ay débat la waaw gisoo Senghor arrière tuuti sëñ Bass arrière ah. ma tuuti tuuti arriéraatal mm-hmm. mm-hmm. gis nga ma ngay ma ngay roof ci ngembale waaw waaw yaa ngi koy séen am na bu muy dal ci suuf da koy sëggaat for ko moom serpent ba tey waaw waaw mais yooyu yëpp euh, jili waaw euh, du dara ci làmb mm-hmm. boo yëpp du dara ci làmb ñu ar bi bi wax du tee mu fi ne nii loolu muy def ne tekkiwul ne teewul ni ar bi wax mu ngi koy dégg mu ngi koy dégg mais concentration bi mu war a jox adversaire am parce que dellu bu téyel ko concentration bi mu waroon jox est-ce que moment bi doo doo doo concentré wu ci sa adversaire di ko xool di ko jàngaale di xoolaale li dégluwaale li arbitre bi dox ndax arbitre bi kenn du ko xool. waaw koy déglu concentration ci jàng ci bëre ji mm-hmm. euh, euh, maanaam concentré wu ci combat yi. Mm. mais du fii. ah du fi. déedéet du fi. fan lay commencé. commencé ci ñuy dox combat ba. Mm-hmm. ñu ne la ah ñëw ne la yow de diw lañ la bëgg a boole noo gisee. nga ne tekk fekk xam nga diw moomu. dëgg la. fekk xam nga ko yàgg nga koo seetaan nga mm. teg xool xam ne kooku mën naa ko daan dëgg la bi ngay jógee sa kër ba nga jël avance ba rek mm-hmm. yeewal sa bopp ne man man wi kii diw moom mën naa ko daan dëgg la parce que foofu ngay xamee yow mën nga ko daan wala waa ji euh, ñeme nga ko wala ñeme woo ko fa nga koy mm-hmm. xamee mm-hmm. nga koo daan wala mën koo daan xam xam nga fa nga koy xamee dëgg la moo la ëpp doole wala ëpp la doole fa nga koy xamee dëgg la avant nga ñu lamb loolu di nga ko xam loolu lépp mbër da koy xam avant mu ñëw ci làmb ji dëgg la waaye ñëw ba ci làmb ji xam loolu amul fenn mm. ñett yi ma la wax kay. Mhm. loolu lépp fa bala ngaa jël avance di nga ko xam. dëgg la waa ji ëpp ma doole wala maa ko ëpp doole maa ko sut wala moo ma sut ah ñoo mhm. tolloo doole wala ñoo tolloo wuñ doole ba nga xam. Mhm. wala maa ko dàq bëre wala dàqu maa bëre. yooyu yëpp da koy xam amaa nga jël avance. dëgg la kon concentration bi amu si dara mooy ak concentration bi mooy ne tekk rek di déglu waa ji wax. loolu rek la foofu rek la. dégg ngeen Père Birahim li mu ko waxee. ah déglu wax rek ay ci combat bi Père. ay ah, ci sëñ arbitre bi laaj na ah. ay jugeam ay jugeam laaj na ñaari mbër yi mhm. gis nga laaj na serpent laaj na caatu yaraax sifflé na peer ah, ah. sifflé na rek daw na jël ko waaw lii moom mooy lan voilà téel lii mhm. xam nga caatu bi bi bi waa ji arbitre sifflé na mayul tàmbare bi waaw moom arbitre sifflé gis nga kii bu fekkoon ne léegi tey jii waa ji jigéen xam nga ni mbër dama leen di wax benn affaire ci bëre mhm. gis nga adversaire bu ñu la ko tax ngeen di wax arbitre bi ciblé gu da nga koy may distance tuuti un mètre. Mhm. wala deux mètres. Mhm. may temps bëre bi may temps distance bi. xool ko mu xool la nga jàkkaarloo moom xool la waaye bu ngeen jigantee benn jigéen bi bu arbitre bi ciblé ñuy tampali ko soit nag la daan daana am na waxuma nag moo am. Mhm. mais daan am ci kenn ki ki song waa ji ñemewul waa ji da koy song jële bëri jeex ko wala boog ki nga xam ne ki ñuy song ñemewul ki koy song. moo tax mooy ñu temps bëri bi. Hmm. arbitre bi sifflé ñu tappaloo kon am na kenn ku ne am na ku sóoraale moroom bi. dëgg la loolu ci ñun daana am. Hmm. am ku sóoraale morom bi. Hmm. kii daal dama koy jige rek am na ñoo xam ne ñi dañ naan dañ daan yor benn nen. nen yi xàcc nen bi nga xool ne pour bañ xool nen bi rek ñu ne la spartañ yéen dóor suuf da nga yéeg ci kaw tribunal ne nen bi laa ba ñoo a xool. ah wala genn fas ngay tàll fas gi daal ma jox xool ma duma yi mu song ma dóor da koy wax doo ko wax yooyu ay assise ndax la mhm. assise ndax ndax la ci bëri mhm. moo tax bi mu ko songee tamit fii bu fekkee bëri kan la taxul mu daan ko mhm. parce que bal lu gaaw gaaw bal na ñaar loxoom ci biir moom mbër mi moom moom ci serpent waaw parce que serpent ñaar loxo mu ngi ci xoolee benn loxo bi mu ngi ci kaw waaw parce que moom da doon laaw ñu jiwaloog moom waaw ay ci sëñ Bas mu dem moom dafa doon laaw ñu jiwaat la ko gis nga voilà delluwaatal tuuti delluwaatal tuuti gisuma laaw bi demal mu dem waaw demal ndànk waaw léegi parce que serpent moo njëkk a cokkaas moom bi muy cokkaas loxo bee ngi ci kaw waaw ay cokkaas rek waa ji wàcc euh, caatu yaraax jël ko waaw ñu dem gis ah, nga gis nga voilà moom dafa soxla mais mais gis nga kii waaw ah, caatu yaraax loxo ma ngi ci biir eh, ah loxoom ngi ci biir. waaw kii loxo bi dugg na mais gis nga mais benn loxoom bi ci biir. waaw kii caatu yaraax mi. waaw loxoom benn kii bi mu génnee. Mm-hmm. xam nga li ma tere woon naa leen sànq. ci allange yële passé. waaw mais bàyyi leen seen bopp di génn ci kaw. di ci kaw baax xam waxoon naa la ko. wax nga ko ba bii passé rek wax toujours gis mu feeñ ci bëri man maa la wax mm-hmm. lii. Mm-hmm. gis nga tey ji caatu yaraax bi xoolal gis nga bopp bi xoolal serpent. bopp ni génn ci kaw. teen ca waaye mais loxo bi dugg na. mais loxo bii bi dafa génn. waaw boobu ñoo ñoo seddoo ñoo ci yem. ñoo ci fii na fii na warul daanu. moom serpent kii bu dugalee gauche. dugalal droite kii bu dugalee droite dugalal gauche. dëgg la yéen a ci yem fii nag la bëri di feeñe nag fii ngay xamee ku mën a bëri. Mhm. waaw ñu dem. léegi fii léegi fii lañ fii lañ caatu yaraax gis nga comme waay comme serpent waaj ji dugg ko moom bal na loxoom nii. Mhm. ëñ dóor paat ci doon na ëñ dóor fa sax rek ci wala boog mu wàcc dugal boppam taf loxoom bii dafa waroon a wàcc fii dégg nga. Mhm. dégg nga mu daw yëg ko ma maanaam genre plaque lay doon. moom serpent. waaw amoon na plaque bi. waaye nag bopp bi du ne fii ci kaw. mais per est-ce caatu yaraax fi mu yegg serpent soriwul loolu loolu. soriwul xam nga tax mu doon sori. ñaari loxoom yëpp génn ci biti. ñaari loxo yëpp génn mais comme loxo bii ngi ci biir nii. loxo bii ngi ci biir nii bële crochet na ne ñoo ci yem kepp parce que caatu yaraax it benn loxo ma génn benn bële ma ngi ci biir. Mhm. waaye kii itam benn loxo ma génn bële ma ngi ci biir. kon kay ñoo yem ñoo yem képp ci bëre bi mhm. ñoo yem képp ci bëre bi léegi fii mu ne nag nii waa ji gën da koo gën a da koo féete suuf nii rek da koo féete ci kaw teg loxo bopp bi ci dënd bi nii rek mhm. waaye caatu yarax bu mënoon a nga mas naa la wax ci biir bëri tam di fàttali ne la bëre ñaar rek ko ko yor muy ban rijaan ak rasu yéen a maa la ko wax loolu léegi nga dàq bëre sa waay nag maa la ko wax loolu kay leer na léegi nga dàq bëre aadama ak kàggu nag ak ay yaa ngi dégg li ma la uh-huh. léegi nag gis nga foofu léegi fii mu ne nii mhm. tey waa ji dugg na ko fii bal na loxo rasu rek ci doon des la parce que kii bi mu ko yootoo nii rek bu bu forcé rek mu tëgg ko mboot wala mu tëgg ko kolma dëgg la kolma am na fi maanaam kolma genre bëre la mm-hmm. dégg nga wala boog mu wàcc remplacé ko jéem a plaqué tànk bi yëg ko loxoom bii wàcc ci pokkataan tànk bii daw yëg ko dëgg la mais nag loolu day fekk mu rasu ba pare ba écarté ko ci boppam ba pare loxo ba wàcc mu daw yéeg. maa la ko wax ba génnee ko dégagé ah. ko ba mu génn. dégagé ba mu génn mu door am loolu mais su fekk dégagé wu loolu nag du am lii du am. dëgg la du am du am du am affaire boobu. dëgg la waaw. ayca ñu eh, dem si bas gis ah. nga demal. gis nga xam nga génn foofu. xam nga génnoon na. mais xool xam nga. delluwaatal teel ni teel. teel hmm. même gis nga fii. même gis nga fii. tam la xam nga la plupart ni ko waa ji dafay dugg nii rek mu samp loxo dem. Hmm. xam nga des fois mbër dina taxe taxawee ko xool naa la ko fii. Hmm. taxawee côté boo xam ne da koo mën a xeexee mais mënu ko bëree mënu ko bëree dëgg la. yaa ngi dégg. Mhm. wala mu mën koo bëre ba pare mën koo xeexee. loolu nag bariwul ci mbër. Mhm. loolu bëri ko ma ne bariwul. Mhm. moo tax ñu ci bari côté bi nga xam ne mënoo koo xeexe suñ la fa àggee nga ba pare nga mun koo xeexe bi mënoo cee bëri bu ñu la fa àggee xool fi ngay tëdd rek ci des. waaw ah, parce dañ laa dañ la àgg foo xam ne fii ñu la àgg mënoo cee bëri daanu rek a ci des. maa la wax feeñ nga fii. parce que fii mu ko àgg nii tey jii kii bu doon bërikat nii dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg bu fekkee mën na ne côté bii. Euh, euh, kii caatu Yarax war ko fi daal. dëgg parce que xool loxo bi waaw mais déplacement xool tànk si gis nga loxo bi bala muy sampoon loxo bi tànk bi la doon ràcce fil loxo bi rek ràcce tànk bi moo gën mu samp loxo bi. la waaw que fii xam na ne waa dafa bàyyi tànk bi yóotu bi ci ginnaaw ñaar tànk yi daje. day tax rek daw yëg ko. Mhm. loolu moom moo tax bi mu croché loxo bi loxo bi mu croché nii loxo bii rek la war na calculer parce que xam nga toujours wax la nit ñaari loxo la. Mhm. benn bi jàppee rek calculer bi libre. waaw waaye bi libre tamit. bu ma téye gauche calculer bu ma téye droite téye sama gauche. mais bu ma téye sama gauche nag calculer sama droite. dëgg la. waaw mu téye fere bi loxom bi téye fii loxo bi ci digg ni moom bëri rek la waroon a bàyyi xel. ba rek la waroon a bàyyi xel mais bàyyi xel ba gis nga waa ji taf ko daw yëg bu ko tafee yëg. loxo bu ma tërë ci day daanu. loxo caatu yaraax ba ba léegi ma nga ca ma nga ca tànk. sa mu nga ca tànk ba te hmm. kii nag gis nga xam nga lu ko doon daal nag. mu hmm. a taxaw ba dindi loxo bii nag. fekk loxo boobu daan waaw dafa waroon taxaw taxaw bu dëgër ba dindi loxo bii nag bu dindee loxo bi rek rëcc mhm. waaye nag loxo bi nag wala nga ko mën dindi fekk nga taxaw mhm. defee nga crochet mbagg kaw daal xam nga la ko dóor ñiin wala nga def leneen loolu nag foofu la mën a bëri di feeñ ayca ñu dem ci bëri dafa riche de ñu dem ñu dem ah gis nga ko tëdd foofu la mujjee jeex na fii lay mujjee jeex na fii lay mujjee mhm. en ma gisee ñoom ñaar ñi seen bëri Euh, caatu yàlla dafa ñoo jeexal bëri bi. dëgg la ñëw rek arbitre mu ñëw song lu mu am jël. Mhm. far yàlla def affaire bi réussir. Mhm. bu fekkee ne bëreem la tubaarkàlla na gën a yokk xam-xam parce que bëri naa la ñaar rek ko yor. Mhm. song rasu rek ko yor. bi mu songee gis nga li mu am. te nee la mbër muy song su mu daan ko mën. waaw mbër mu ne riñaan. su mu daan ko mën. ak daan ku la daan koo xamul mëninam song dong koy def. waaw. koo xamul ma ne na ah. song rek comme dé ko ma ne song toujours nga daan ko la mën ah, parce que mbër doo xam sama nin mhm. salaamaaleykum ba paquet waa ji dóor suuf looy xam doo réagir benn réaction doo ko def loola ndax moo tax ñii dañuy xale yoo xam ne dañoo dañoo euh, a gën a bu fekkee bëri neex na leen mhm. bëgg nañ ko di ko foye nañu gën a yokk seen xam-xam mhm. yokk seen xam-xam mooy ànd ak mbëru mag mu la jàngal bëri jàngal bëri gi mooy mu toll seetaan ngay contact dëgg la di contact lu bari di daan di daanu soo daanoo mooy ne delloo action que delloo action mooy ne du nii. suñ la defee nii nii ngay def. Mhm. loolu mooy tax nga bari xam-xam. dëgg la waaw. jërëjëf Père Birahim des na dese nañu de dese nekk war nañoo góorgóorlu di góorgóorlu yokkaat seen xam. ay xale lañ ñu mhm. bëggee sori ci làmb ji. Mhm. nañ yokk seen xam-xam te góorgóorlu. ndeysaan waaw. jërëjëf mbokk yi dégg ngeen ni nga xamante ne Père Birahim waxtaan na ko ci combat serpent ak caatu yarax ñu leen di jëfalaat bu baax a baax di leen tàggu ci tàggoo bi nga xamante ne moo du tàqali ko père di la jaajëfal bu baax a baax a baax encore une fois jërëjëf ba la incha allah naan laa ñaari yoon bol boo jaar booba laa mëne foo jaar fafa laa mëne dama mën ci bii boor mën ca bee boor mën ci yi boor ak ci yëley boor bàyyi fas njaay nu ñoom tuuna rëy ma juub waa na roy ma saay baaxi jeeg ñi ma yor